sama ndaanaan baa ngi doomi Bawal laay wayal man cuur biki laay wayal ay sama champion baa ngi man jili dongoloo ma way la cuur bikil rabbil alamin gis nga heure bi dafa baaxoo soo añee ba pare génn def benn sees sees dallu heure bi nag ci la sàcc yi doxantoog wàccek gis naa fi sàcc boo xam kër Kumba Samba Gueye fa la tëb sàcc bi bi mu ne cërëb mu saako la dajal mu ubbi bunt bi mu ko jongal ma. Diop waaw affaire xaj yi ma def ko. je m'excuse. dama ne. waaw. <laughs> maa ngi daanu sax lu tax ñu dem kër Samba Ndour. Hmm. mu boole ñu xaas nga yóbbu ko. xam nga lii la ñu wax naan borom xaas du doylu. lii lan la aw yoo lii boromam xaalis du doylu booy xamalal la. yow laa déglu ma tay Diop xam nga ma de. Samba laa duma xam woo ma merde. Samba Ndour moomu. sëñ bu baax bi jërëjëf. màggal naa la taxawal rek yow. teggil xoolal tegg sa tànk ci waay. booy rek. toogal may ma may ma. sa ndey ma may bi mel ni fii koo fi gis. danoo jëli ndayam indi dëj ko di ko xaxar naan bul dóor bul saaga américain lañ sa ndey hmm. bi muy wàcc ci sama kanam yow. omo xaj may ma may galeeg yow Samba moomu su laa bëggoon a wax ak yow defal na mu lu rëy léegi nag xam nga fu ma bëgg a def ak yow lii lan la laaj xam ma lu mu ni mu xeeñe noonu nga xeeñe del sangu sama waa ji waaw waaw gàllaaju sàmm nur la xeeñal yow moo tax nga yàkkaan lu jug nga yàkkaan dafa xeeñ man nag li ma lay wax du bari jóob moytu ma waaw moytu yow da ngaa ñàkk jom yow xamuloo naqari waaw xamuloo eh. naqari may ma eh. sa bakkan yi mel ni fu ñuy dencam néew toogal rek ca diglu waaye ku mu yeggale amuloo waaye fii tam ñaari jongama doo yoroo dara <laughs> loolu la métti waaw jongama yooyu nag waaw booy may yor naa ci ñaar su jongama yooyu ma sa morom dama dama dama dama am nu ma defoon benn xale bu ma mayoon bu ndaw xale bi saa suñ tëddee ba guddi ñeenti tubay lay teg maanaam dinaa yat yati góos duraat yat yati góos duraat du ma ci man dara benn suur laa engagé jëm ci kaw mu yëqu ma am lu nu teel damu ci man <laughs> sëriñ boobu mën a yóbbu mu fobeeram la ilaha illallah ab sëriñ man Diop du ma dem sax si sëriñ man yooyu xam ma ko ku mën a defal ak Modou Diagne xam nga Modou jaañ mooy lan dama ne mooy li nga xam dama ne la boo dox muy sëgg ne sa ginnaaw naan suul Diop du fekkee man ak man rek mm. sa lii dana mel ni pataas ndax man bëgg ma mu ndax yow baaxoo jërëjëf yow baaxoo mënuñoo dem kër sa mënul mu jox ñu li ñu jox nga ko man nag sama xaaj doo ko lekk mm. man maa ngi ne damay dem ndax mm. am sa temps soof nga trop sa noppi sa fataaya yow nag booy yow bëri nga wax waay ni nga ma soofee doo xamoon sa bopp bi ñoom lu ci teg daw sa weer yi di mel ni pare-brise trop noppal noppal sa bakkan mel ni bos faale man noppal noppal noppal sa yi mel ni